léegi li ñuy def garga 2 bu dóor dóoraat wala boog bu jàmbaar wrestling académie ndax léegi jóge na dóor dóoraat ci ñoom sos léegi papa sow la bokk léegi mais lépp ci biir parcelle la parce que à parcelle 1 ba 26 amul xaaj ak seen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon garga 2 yow la ñuy jox kàddu gi drapeau Alaaji Papa Dieng sargal ko ñu ngay bëre bi yow ak Maama Lamine looy wax aaju billahi mina sheytaan ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente bi ñu ngi nuyu ñu ngi ñu toog fii muy journaliste yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal di nuyu sama papa El Hadj Papa Dieng di nuyu sama adversaire Mama Lamine ak ñi mu àndal ñëpp ah. di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal sama ménager Basirou Babou di nuyu Père Max di nuyu sama mbokk kajoor kajoor bi borom ngaay waaw maa ngi koy nuyu bu baax a baax. waaw di nuyu di wax ni lii nag am na ci mbégte bu baax a baax parce que wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ doon feer feerte la ci ñun ñu bëree combat boo toll nii suma drapeau El Hadj Papa bi nga xam ne moom la tuddee làmb ji. am na mbégte lool pour bëre ko parce que dañoo ñëw fekk ko ci làmb bu yàlla dogalee ñu tuddee bis bi moom jaral na ni ñu tekk suñu bakkan ba bis bi lépp lu ci laaj ci réussir rek ñu def ko parce que nag surtout ci côté violence bi ñuy wax ci làmb ji ñaan yàlla ba violence dañ jàmm parce que moom bisam képp ko xam xam ne ci jàmm rek lay dox comme ni ñu ko nit ñi waxee di wax ni ko daal làmb ji lépp lu mu laaj ñu dinañ ko def pour làmb ji réussir ñun ñaanal nag waa Equivox bu baax a baax parce que ñun am ñu fayam parce que man toog naa trois ans bëréewu ma ñoom ñoo ma génn ci wax bu ma nekkoon kon suñu ñëwee tuddee làmb li faaw ñu def suñ fulla ak fayda ba làmb ji réussir daal maama Lamine combat bi sama ko fonk de loolu moom bëgg naa nga xam ko bu baax a baax di nuyu di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal ku ci mel ni Pape Ndiaye ah disco Diak moo ma ñawal lii xam nga di nuyu sama goro Tamsir Dieng maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxnaam di nuyu waa kër gi yëpp. di nuyu sax non parce que comme non Mama Lamine xam naa ko bu baax parce que champion la li tax ma fonk combat parce que dama ci défaite toog 3 ans kon su ma ko jëlee ma ko pour daanu bu jël pour ñëw daan pour wuti leneen loolu tax ma wax ko fonk bu baax ñoo nuyu na sama mbokk kajoor kajoor yëpp waa Ndande ba d'abord di leen jaale suñu tante ji fa jógee démb muy mère Daba ñu ngi koy jaale famille bi yëpp di wax ni dëj bi incha allah dinañ ci teew bu soobee yàlla di nuyu ñëpp non maama leen xam nañ ko bu baax leen kàll xam ci moom nag dañ koy denc pour ñun waaw am na ci loo xam ne ñun ñoo koy denc bu bis baa ñu exploité ko incha allah rabbi jërëjëf di ñaanal nag sama mag sama xarit papa Sow comme baam bi ñu jëm yàlla defal ko ci ndam ñoom franc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ndam bu sedd bi ba mu benn werante mën loo nag di ko ñaanal roi des arènes mi des fi jërë ngeen jëf merci beaucoup attention <laughs> balile man su mbargaan li day gudd loo fan day yokku waaw ñoom waa ah? comme ni ngeen ko xame nag dégg ngeen Garga wax na nuyoo na woote na li mu xamal kii tamit nee na ko dama fonk combat bi léegi Maama Lamine la ñuy jox kàddu gi moom mi nga xam ne moom moo jógee Lamsar war a bëre sargal Alaaji Papa Dieng père Max Mbargar indi ko Maama ñu ngi lay nuyu di la mbokk ñi fi toog ñëpp maa ngi leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sant di wax onju billah bismillah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonenteem bu tedd bi di gërëm sumay ñaari waajur di ñaanal suma papa fu mu nekk. yàlla na ko gënal fu mu jógee di ñaanal suma benn mbokk mi nga xam ne daaw wàññeeku muy baabu ñu koy ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana di ko jaale soxnaam waaw di jaale aussi tamit sama maam taalibe Ngom dafa wàññeeku di ko jaale suma tànn Fatou Seen di ko jaale mbokk yëpp waaw di nuyu suñu papa bi toog fii muy alaaji papa Dieng ñu ko sopp lañ ñu ko bëgg lañ waaw yàlla bu defee nag tey ba ñu yegg fii tey war a bëree drapeau kon loolu yaakaar naa ni sens la aussi parce ay ndaw lañ nekk ci làmb di nuyu sama adversaire aussi tamit muy Garga di ko nuyu di nuyu ñi mu àndal di nuyu aussi man it ñi ma àndal yee di leen jaajëfal bu baax a baax wax di leen wax rafetlu naa émission bi naa teewaay bi loolu sax macha mm-hmm. waaw dina ko fonk dina ko fonk ndax dama am lu ma ko waxoon lu am solo nee naa ko maalaw labaak maalaw birima maalaw mesa penn joor mm-hmm. kooku lu ne lay defar waaye moom bu bis baa dinaa ko tegal téeméeri ngalantiir ngalantiir xam nga ngalantiir ak téeméeri sabar di ko wayal ay maamam Kumba Lawbe gaas gaas waaye gaas bu boobaa moom du yëngu li ma ko nar a dinaa ko taggal ay maamam te du yëngu te combat bi li tax mu fonk ko c'est normal mu fekk c'est normal mu fonk parce que yaa ngi daan bëre koo xamante yaa ngi daan bëre ñoo xamante ni peut-être duñ man man aussi tamit maa ngi daan bëre ñoo xamante ni peut-être moom du moom moo tax combat bi lépp lu mu ko fonk rek na ko yokk et sama wax tamit baax na ci moom ndax dañ ko doon dëkkal ci noppi yaa ko mën yaa ko mën yaa ko mën loolu bu ko àndaale woon làmb ji rek mën naa am betteel na def ci boppam mbër lay bëreel te moom lépp lu mu soxla ci làmb ji maa ko ko gën a soxla fuuf Garga dafa nekk ci ruq te dafa bëgg a dem dafa bëgg a loxo la ut mais man tamit dama bëgg a romb Garga fekk ñu nekk ca kaw te li ma koy mooy yàlla may ma ndam ci kawam ma daan ko jënd bu rëy ci kàttanu yàlla loolu laa ñaan yàlla waaw waane amul ci làmb mhm. làmb fu laak fayda ak jom mais man ngor moomu ci ëppale kii bu ñu ba pare wax di ngeen xam ni maama ndaanaan la waaw bu ñu ba pare di xam ne maama ndaanaan la waaw drapeau bi li may wax rek kii suñu papa ko dëgg yàlla waaw buñ toogoon sax gis tele ñu tuddee ko drapeau yeneen mbër di ko bëree sax dañuy ñëw waxatuma la ak moom bisam te maanaam moom làmb la mënu kenn mënu koo génne ci làmb ñun dañuy toog di déglu suñu papa mais lu rafet lay wax wax dëgg yàlla lu nar a ñaaw mu rafetal ko te lu nar a dëng mu jubanti ko te dañ koy ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu te ànd ak wér leneen fekk ko fi loo xamante ni saa bu ko gisee rek day kontaan te ñu ngi ko koy ñaanal wax dëgg yàlla man damay géwal juddoo ci da ko faalik maa wa jor ma sàmba yaa jaloor kon boo fi taxawee di wax waxi géwél yaa ngi nax say làmp Papa Dieng lépp lu mu bëgg ci bis bi dinañ ko ci defal non yow xam nga ni dinaa ñëw loolu moom jarul wax yaa ngi naan mën a fecc mën lépp ñëw nga naan ma looy ñëwee waaw contentement daal laa ci am wax dëgg yàlla li may waxee sa waxu contentement la ndax wax dëgg yàlla drapeau alaaji Papa Dieng laay bëre rek non doy na doy na ko te man wax dëgg yàlla bëri naa drapeau bu ne bëri naa drapeau abano stress bëri naa drapeau président ki nekk si kii bi Matar Ba yee mais dara fekk ma si dañ ma jox sama drapeau ma dem mais alaaji Papa Dieng mi kii royuwaay la quoi dëgg yàlla ku baax la ku baax la man miinu ma ko nag parce que mosuma toog ma toog mais xam nga làmb moom ku ci nekk xam nañ la waaw te ñu ngi koy gis ñu gis ay communication te loolu lañ soxla si làmb yee parce que lii fi nekk nag man ak Garga doo seex et làmb làmb la rek li ko fi yàggal mooy feebar bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom jële fii ci nu mu gën a gaawee ñu ubbi saison bi mbër yi bëre que le meilleur gagne samedi Balla Gaye woote fee see kaca mbëri yëpp ak lu làmb yëpp dañ fa war a daje pour wax xool kañ la ñuy war a mën a ubbi saison bi pour gaa yi war a mën a tàmbale yee loolu la ñaan yàlla taskatu xibaar yi yëpp ñu tasaare ko ba ñëpp jot ko bu subaa ñu mën a teg suñu coalition mouvement comprendre ci loolu laa doon am lu ma doon sant non tap vert moom tap vert lii ma fi gisagum rek Youssou dafa dafa dal sama xel te xam nga ni damaa bëgg lii te lii amul fenn bu dul ngéwél boo demee de da ko fekk de day leen boo ko demee da ko fekk li ngéwél la sama jabar diwél la de ah Amary tàkku ah, ma Ndiaye rek. loolu loolu la may defal maa ngi lool ñeent ñaa tout cas li may waxaat mooy li may waxa waxaat mooy mooy kuy waaraate moom mënoo bëri mbooloo kuy waaraate war gaynde mënoo bëri mbooloo le fait que mooy dañ ciy nekk rek di ñaan yàlla sunu borom yàlla yóbbuñu su jàmm ñëpp am jàmm. kenn bañ a manqué yee suñu borom def si poos xéewal waaw ba ñëpp mën koo teewee waaw di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di nuyu sama xarit sama mag Taali Couture élément Cheikh Ibra ak Sérif ak ñoom Matar ak ñoom Karbala Sidi Oumien dama ànd ak ñoom quoi ak Fallou Koundoul koo xamante ni sama xarit nuyu waa Gambie aussi tamit bu baax a baax a baax maa ngi leen nuyu bu baax parce que fa laa jógee démba rien que pour lii quoi waaw <laughs> samay mag a ngi fa sama lépp a ngi fa mais Serigne baa ngi Touba muy Serigne Abdourahmane Mbacke ibnu Serigne Mbacke Madina man si kooku laa yaakaar kooku mooy sama Serigne waaw di nuyu aussi tamit Baye Karim Mbacke Fallilou bu baax baax a baax ak taawam Soxna May ak Serigne Sidi Mbacke alxuraan borom jàmm ga borom si 2-0 yow juumoo de incha allah 2-0 Siteu xale la nekk si yoon voilà Siteu xale la. nekk si yoon bu may wax naka a li nga wax damaa noppi voilà dafa nekk ci yoon pour mu daan pour mu daan loolu dañ koy ñaanal yàlla suñu borom may man aussi tamit pour ma daan dañ may ñaanal yàlla aussi tamit mais suñu yéene mooy tergal bu ñëwee incha allah naa ko daan Papa Sow bu ñëwee dinañ ko daan un point de trait wasalaam waaw gars yi defe naa ne affaire yi moom fi mu nekk nii mat na Badou nag nee am na lu mu bëggoon a lu mu bëggoon a tëjee Badou xam naa bu gàttee rek. ay waaw maa ngi euh, ñëw rek pour tëj euh, di di dolli sant yàlla euh, di dolli sant yàlla bu baax a baax a baax Euh, mënuñu mënuñu tëj jotaay bi te quand même ñun waa groupe Equivox Vox Arena euh, gërëmuñu suñuy waajur parce que en fait sans que rien de ceci ne serait possible euh, ñun ay xale yu ndaw lañ yoo xam ne ay saalum saalum lañ bi ma gisee lii tey dafa am lu sama xel dem bi may ñëw ndakaaru pour la première fois sama papa daf ne ma yaa ngi dem Dakar yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na le 9 octobre 2019 daf euh, ne ma yaa ngi dem Dakar mais boo demee Dakar am foo tëdd moo jafe mais boo ko amee li ci des mën nga koo lijjantil sa bopp ma ñëw nekkoon ak sama grand frère mu ne ma nag su nit ñi di tappalee que truand wutal nit ñi bés boo amee nit boo am mu faju et dans ce monde d'aujourd'hui c'est très important de se faire et chaque personne doit être comme soi-même parce que la vie nous réserve beaucoup de surprises donc loolu dañ ci war a bàyyi xel et puis ñuy am un esprit positif nit dafa war di rafet njort parce que en fait milieu làmb ji euh, ñëpp ñoo ko bokk ku ci nekk da nga war am xalaat bu rafet gis nga nit bu la rombee te nuyu la jàppal ne daf la gisul mais bul ne daf ma gis di ma jaay affaire donc loolu la nit war a jiital ci xelam. presse bi aussi que ce soit presse en ligne bi que ce soit les télévisions classiques et tout ça dañ war a ànd ànd bu rafet yéene wante jàmm ku nekk soo munee xajal sa morom nga xajal ko parce que àdduna bi loolu la war a doxee dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk vraiment làmb ji xam nga warul am problème ñun ay xale yu ndaw lañ. dañoo ñëw topp ci gannaaw mag ñi mënuñu fi def loo xam ne kenn defu ko donc dañuy ñëw rek jéem a apporter notre touche à l'édifice pour xam nga lépp gën a rafet donc nit ñi ñëpp ñu jàppalante ñu yéenewante jàmm vraiment di ñaanal euh, suñu parrain bi yàlla defal ko jàmm ba bés bii nii nii ku ko gis nii tey ah di nga xam ne bés bii bés bu nar a neex la bés bu nar a métti la parce que lu mu bëri ah engagement biñ ci am vraiment xam nga ak kilifa gii nga xam ne moom lañ ko tuddee dina tax ku ci nekk rek lépp loo xam ne mën nga ko ci def di nga ko ci def ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp maa ngi gërëm nag sama famille quoi di gërëm suma waa dëkk aussi man maa ngi dëkk Passy donc ñun aussi groupe Equivox ñu si ëpp saalum lañu dëkk xam nga ñu ngi gërëm aussi Abou moom mi nga xam ne vraiment suñu suñu partenaire la accompagné ñu di ñu jox ay xalaat yu rafet di jàpp ci liggéey bi comme ni mu gën a rafetee maa ngi gërëm suma dëkk bu baax di gërëm sama soxna samay njaboot parce que aussi nga nekk ci business bu mel nii donc sa famille comprendre la bàyyi la ngay dem weekend nag lépp nga nekk ci di kër kër yi donc loolu mënuñ lu dul di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla dafa jàmm bañ fekkee bés bi wasalaam yo ngeen jox léegi kon photo de famille bi moo des en Modou di la nuyu garga kii nee na am nañ ko mu fàtte maama mais man tam père Max na mu ko daan waxee ci yaay kaay kii de nu mu tuddati sa tailleur ba baax yaay waaw man nag waa Ndoukoumane Couture jaar fii ca Anne Maris maa ngi leen di bëggee Cheikh Cheikh Diouf Cheikh Diouf maamal Lamine nee na mu ngi lay bëggee bii nga ko dagal mu jóge Gambie ñëw fi yaa koy fayal saal ca Gambie kon Cheikh dompat ci sot la bokk waaw Serigne Couture sëñ Modou Ndoye Couture alaaji Papa Dieng ne mu ngi lay gërëm ca Medina sëñ Modou. waaw ndeysaan Rimka Couture tamit borom Touba Sandaga samay tailleur la maa koy bëggee moom tamit waaye kenn dund Koumane sama gars nag photographe yi bu ko faw ngeen jël yi après. Waalo Guèye Abu Nduur ngi noonu toog borom record pël bu rafet borom Bawal TV Fatma Dia. Garga xoolal gars yi. waaw yéen ñaa waaw yéen voilà.